fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom moo jëm ci élection yi di ñëw incha allah mu fas ñu wax li nga xamante ne moom mooy xalaatam jox ñu xam-xam waaye aussi jox ñu participation nan la nar a demee ci biir élection yi nga xamante ne moom ñëw ak mouvement yi nga xam ne moom lay àndal loolu lépp incha allah dinañ ci dikk beneen kàngam la ñu toogal fas yéene seq ak moom waxtaan lu yaatu yaatu yaatu ci biir banlieue bi duñ sori nag biir Pikine Ouest lañ ko jëlee ñu gën ko xam ci Moustapha Guèye Moustapha Guèye ñu ngi lay nuyu di la ziar Euh, di rafetlu itam setsi bi nga setsi Canal Banlieue. merci beaucoup euh, Seydou ñu ngi lay. Euh, nangul ziar bu baax a baax baax di la nuyu di nuyu bu baax baax ñi nga xamanteni ne ni ñoom ñooy suivre canal banlieue mais surtout émission en route vers les élections di nuyu say technicien di nuyu vraiment ñi nga xamanteni ne ni ñëpp ñoom la ñu di di liggéey ak ñom di nuyu aussi sama sama xarit Ousmane nga xamanteni vraiment li may dem ci li ci ëpp momay momay gungé mais du nuyu aussi l'ensemble des membres de de la coalition ànd taxawu ànd taxawu Pikine Ouest mm-hmm. mais du nuyu waa Pikine yëpp du nuyu waa Sénégal di nuyu kilifa yëpp kilifa diine yi ak kilifa aada yi mm-hmm. di kontaan bu baax a baax ci invitation bi et di ñaan yàlla rek liñ fiy wax yëpp yàlla na nekk loo xamante ne nii luy jariñ la incha allah euh, wax dëgg yàlla kontaan nañ ci dalal bi la dalal euh, ndax jeune bu dynamique ni la saa buñ ko soxlaa day ñoo fas Euh, bokk ak aksanam li nga xam te ne moom la euh, taataan ci ay expérience euh, Moustapha du ñu sori ku ñu fi invité nag dafay doon waajib wax dëgg yàlla ñu gën laa xam ndax ñi lay ñi la jege bu ñu la xamee aussi am na ñi nga xamante ne dégg nañ sa tur bëgg laa gën a xam bu ñu sañoon li nga liggéey nga nekk seen maire. mais il mhm. faut que nga may leen occasion ñu xam leen moo tax dañ lay laaj sa parcours bu mu mën a doon rek mhm. parcours professionnel la Euh, parcours académique la parcours politique la bu mu mën a doon rek nga baaxee leen ko ba ñu gën laa mën a xam. voilà merci beaucoup Seydou loolu moom dama si sawar a wax damay am mbégte bu baax pour wax si parce que en fait euh, Mouhamadou Moustapha Gueye du kenn ku dul benn jeune la boo xamante ne nii fii la juddoo si banlieue bi. et, spécifiquement dans la commune de Pikine Ouest quartier Missirah Waxal Jaam Dagoudane fini ñuy Dagoudan, Fala Judo, Fala Yoro, Fala laa et Fila Djangé aussi Pikine euh, cycle primaire et dem euh, Sem jàmm gën aussi le cycle secondaire ak lycée Fala ko après le bac je me suis orienté vers euh, l'Institut français de Dakar pour suivre la gestion des organisations et des petites et moyennes entreprises et en dehors de cela aussi je suis expert en informatique parce que je suis informatique et ba suis sax euh, dama vraiment jàngale def aussi infographie voilà et defna infographie et loolu moo permettre aussi vraiment ma taxawal sama sama entreprise actuellement je suis euh, chef d'entreprise. Euh, entreprise taxawal entreprise bo xamante ni mu ngi tudd entreprise Mouhamadou Rasoul ñu ko taxawal depuis 2012 muy yëngu ci lepp lo am ci infographie la informatique maintenance informatique sérigraphie di jappalé jeunes aussi tamit ci sen insertion mais aussi sen stage parce que en fait euh, am na jeunes yu bëri yoo xamante ne nii dañuy jóge à l'université UGB wala université Cheikh Anta Diop wala si institut mais malheureusement ils peinent à trouver vraiment un stage mm-hmm. et que ñun dañ leen di accueillir ah pour ñu def foofu stage bu ñu paree ñu accompagner leen pour que ñu def seen rapport de stage mën a aussi tamit continuer seen jàng ñi nga xamante ne dañu bëgg insertion ñu jàppale leen mm-hmm. pour ñu def euh, insertion professionnelle Vous voyez, aussi euh, j'ai une expérience de 20 ans dans le développement communautaire et les programmes de dafa accompagne les organisations de jeunes et de femmes et autres organisations loolu def na si vingt ans. Mhm. et yengusi si mhm. ah, vraiment yengusi si lu yag yag yag lu yaatu yaatu def ci ay résultats yu bari xamna dinañ ci ñew inshallah et bu weesoo loolu aussi tamit actuellement je travaille avec la coopération allemande mais la GIZ. Mhm. consultant la fa et bo xolé le projet pour l'identification des jeunes champions du Sénégal les 300 jeunes champions du Sénégal man mako def. et actuellement aussi maa ngi leen di ngi accompagner ci li nga xamanteni mom moy sen euh, côté leadership de parole en public, etc. etc. Quoi. Mm-hmm. Récemment, nous étions en tournage euh, d'une émission euh, avec la GIZ euh, pour les et ba léegi aussi aussi avec la coopération canadienne mm-hmm. et que yow xam nga Nous dara bu baax am le CECI mm-hmm. le centre de coopération internationale depuis 2013 nous ngi liggéey ak nous bu et mun naa ne résultat yi ëpp yi ñu am sax si liggéey bi en fait ñu nekk euh, waa CECI la et di leen remercier de passage en tout cas daal boo bu ma doon résumé daal Mouhamadou Moustapha Gueye daal loolu la quoi benn Baye Fall la bu nekk fii di yëngu di voilà di ñafe pour dimbali askan wi quoi <laughs> voilà waaw dafa am li nga xamante ne nag euh, parcours boo def la mais euh, bu ñu laajee bu ñu duggee ci biir askan bi bu ñu laajee boo nee Moustapha Mouhamadou Moustapha Gueye am ñam dañuy taxaw di la mais boo nee mm-hmm. Tafa Gueye Kogapi rek dañu retrouver wu. Mhm. sa diggante ak Kogapy lan la ba yow yaay directeur exécutif bi ndax mën nga ci dellusiwaat tuuti. loolu moom dañ ciy kontaan bu baax parce que tur yi ñu may woowee gars yi tur yi bëri naa euh, Moustapha Guèye tonton Tafa bu Serigne Saliou moo di xam nga tur yi bëri na loolu lépp li ko waral moom mooy que ni pratiquement tur bu si nekk rek euh, dama si identifié wu. parce que boo nekkee ak nit ñi tamit il faut nga am benn comportement boo xamante ni day tax ñoom ñu mën la accepter muy nga wàccee sa bopp. Euh, jox leen ñoom mom, et aussi tamit li nga xamante ni yaakaar nañ ni yow bu ñu la ko approché wala bu ñu la ko waxee dina la neex aussi ñu la koy wax et je pense que loolu lu am solo la parce que en fait euh, bu fekkee da nga nekk acteur de développement un vrai acteur de développement waroo nek ku rëy waroo nekk ku diis da nga war a nekk koo ni da ngay jege askan wi et aussi di liggéey te yàlla rek a tax mhm. waroo liggéey te ngir li wala la, te li ñuy liggéey en fait, à titre bénévole là. Et concernant le, euh, le Kogapi, en fait, Kogapo le Ndjokon. Avant moi Kogapo, ça m'a demandé mon CLCDPE, moi euh, Pékin Est, maison communale, fait que nous Serge, nous ah, Ibou Diaw, ak, euh, vraiment ak ñom ñep dal waxtaan ak ñom neneen euh dama bëggoon CLC parce que autant il y avait le programme d'Agran Anvers avec les Belges léegi ñoom ñu ko doon déroulé foofu mais élargir ñu ko woon ma ne ah man de bëgg naa bokk fii nga xamante ni moom CLC parce que gis naa li ngeen di def parce que ñoom ñu ngi doon def ay activités yu bare bare bare bare pour jàppale les jeunes jàppale les artistes et tout ñu ne ma Moustapha fii mënoo fi bokk parce que fii dañ kaa limité au niveau de la commune de Pikine Est su fekkee da nga bëgg benn il faut nga dem Pikine créer fa benn après si laa dem euh, waxtaan ak grand Chérif Diallo te nek cité te mu yoroon programme PACPUD bi waxtaan ak moom ne ko vraiment dama gisoon fee CLC DPE affaire bu rafet affaire bu baax ma bëggoon nag Pikine West bi ñu taxawal cadre bu mel noonu man mu waaw loolu de lu am solo la parce que jot nañu xamante ci association yi parce que yéen yéen a yoroon association liggéey rek ñun ñu yoroon association des habitants de la cité et gis naa liggéey bi nga doon liggéey loolu lu baax la te mais bu ñu ko waree taxawal am na ñu ko fi njëkkoon taxawal mais après jàllul mooy ñoom Isaaxa Diop di koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xaree ko àjjana grand Isaaxa ñoom Fallou ñoom Lamine

d'organisation, d'associations, de groupements de femmes. Ils ont le même objectif pratiquement, mais malheureusement, elles ne travaillaient pas en parfaite collaboration. Elles ne travaillaient pas en synergie. Mm-hmm. Le cadre de concertation du COGAPO, c'est ce indi. ba dit. ñëwee nous ñu d'accord, ce qui s'est passé est passé ñu dem assemblée générale Gaï Fall Lamine Gueye. nous mm-hmm. liggéey si liggéey bu rafet. après président Lamine FM. Bouzik FM et que nous dit vraiment le le COGAPO ba léegi moom ça. et par la suite nous euh, avons intégré le programme jot def nak ay activités yu bari bari au niveau de la commune voilà programme bi moo ñu en salle. chaise bi ñu nekkoon et tout ak le fonctionnement et tout activités yi déroulé yépp hein ah, programme bi moko ko doon jël en en charge muy Nouvelle et que ñu liggéey ci liggéey bu machallah et si programme boobu xalé yu bari ci lañ leen encadré ci lañ leen vraiment jappalé ba aujourd'hui tey ay kilifa lañ mën naa si cité ñu bëree bëri ku mel ni Abi Faye mhm. te mu nekk TFM fa jaar et cetera mën naa cité ñu bëree bëri ñoo xam te ne tey fa lañ jaar ba tey vraiment alhamdulilah waaw ak ñi nekk à ñi nekk à l'international <laughs> loolu <laughs> c'est vrai que fa lañ jaar mais li si ëpp loolu Kogapi moo ko indi voilà Abi Faye loolu tax sama xel léegi nag euh, après loolu ñu liggéey ko mu rafet trop gars yi après programme bi jeex en 2000 2012 programme bi jeex amatuñu benn fonds pour mën a jël ay siège mhm. après nag si la ñu toxoo ba ñu toxoo dem euh, cité luy waat foofu mu metti waat mhm. ñu juge waat foofu après dem euh, dem fële dem euh, complexe ba mais avant yooyu yëpp di def di nuyu de passage grand Ndiassé mhm. Ndiassé Gueye si Kogapo jàppoon na si bu baax parce que man ak moom ñoo doon nekk mairie ba yor suñu kees teg suñu benn ordinateur. Mm-hmm. c' était trop dur. Mm-hmm. foofu gerte caaf la ñu doon añee daaw ñu añ daan métti ba dem sax ba am problème ak avec la mairie ñu génnee ñu mairie ba. e que vraiment euh, ñu dem complexe ba aussi liggéey fa liggéey bu am solo. par la suite nag ñu demee ba benn moment affaire yi métti trop. métti trop ba gisatoo benn membre. après nag si la ñu commencé aussi tamit euh, euh, recevoir. c'est CECI en 2013 y ah, def une diagnostic organisationnel pour xool les organisations fêtières, yi nekk fi au niveau de la banlieue mm-hmm. ñan ñoo si gën dynamique ak ñan lañ si war a mm-hmm. et que bon man maa def diagnostic bi ak ku un certain Babacar Babacar Diaw mm-hmm. et ba ñu waxtaanee il s'est trouvé que ni vraiment collectif bi ñu yoroon dans les dispositions pour intégrer le programme c'est la intégrer nag le programme muy le CECI ñu liggéey si aussi liggéey bu macha allah def des ay formation yu bëree bari bari bari ah def ci vraiment ay voyage d'affaires def salons salon de l'emploi sax si salon de l'emploi bi ci lañu gëna a ci <laughs> quoi depuis 2014 et que 2013 2014 2015 2016 etc. ñuy liggéey et si sunu quatrième édition salon de l'emploi si lañu ni vraiment formé won nañ ay yu sur les techniques de recherche d'emploi sur euh, l'entrepreneuriat sur la gestion financière sur le marketing la communication etc. mais xale yi ñu formé woon pratiquement daaw ñu woon jóge seulement Pikine Ouest fu ne lañ daan jóge ci Pikine mhm. fu ne lañ daan jóge ci banlieue bi mhm. et que nag euh, ba ñu defee loolu après nag si la xale yi ne euh, à travers benn euh, comité local de développement bu ñu préfet ko organisé woon ñu koy saluer de passage si la xale yi wax ne ñoom gis gisatuñu seen bopp ci Kogapo mhm. comme que ñoom ñu ngi jóge ay yëmbal ak ay ginnaawaraay ak ay ne bu ñu waxee Kogapo dañ leen di limité mieux vaut ñu voilà mieux vaut ñu élargir affaire bi quoi ñu élargir ko mu yaatu pour que au moins ñu mën a ñoom ñu mën si gis seen bopp si la ñu toog waxtaan ak partenaires yi ak waa CECI ak benn euh, volontaire bu ñu envoyé woon en planification ba ñuy def la planification stratégique 2019 si la ñu nag changé le nom changé le logo ñu ñëpp ñu d'accord ci ah les membres vraiment ne mieux vaut ñu changé ko taxawal benn organisme boo xamante ni vraiment ñëpp dañ siy gis seen bopp et ci xalé yoy nga xamanteni ni tamit formé won nañ leen moom comme ni nga waxé sank amna ci na si ñoo xamante actuellement ils sont à l'international mm-hmm. je peux citer le cas de Ouray Sall la présidente hein Moussa Thiam bi nek France et Soumaré bi nek France extra mun naa citer ñu bëree bëri ñoo produits ne Kogapi c'est des produits du Kogapi mm-hmm. ils ont été formés ici et encadrés ba nu ñuy démé attestation yi leen doon jox et tout lolu mo leen ubil ay buntu yu yaatu yaatu tay Ouray tay mën na témoigner lu mel nonu hein euh amna ñu bëree bëri ci ñom ñom mën nañ témoigner ba ñuy euh, jox euh, attestation yi ñu am si formation yi ak voyage d'affaires yi ñu def formation yi ñu def dimbal na leen bu baax a baax a baax si fi nga xamante ni moom la ñu nekk léegi nag xale yooyu ñoom ñoo engagé wu mm-hmm. ne ñoom ñoo ñuy représenté au niveau international léegi nag loolu indi le collectif des groupements associatifs de Pikine dans sa globalité et internationale. parce voilà. que vous avez des ambassadeurs. c'est ça à l'international. loolu Dal moom est vraiment. le le le COGAPI. d'accord après c'est le le directeur exécutif. ngay waaw. coordonner ay programmes gis nañ ay programmes de formation yu bari nga aussi COGAPI da koy taxaw. Mhm. en collaboration avec CECI. absolument euh, mais si buñu bu ci loolu ba tay mën nañ un peu faire un glissement dugg ci li nga politique. Mhm. Euh, parce que loolu terrain de développement local C'est bien vrai que le développement local ak politique kenn mënu leen séparer. Mhm. parce qu'un agent de développement local c'est un c'est un agent de la politique parce que la politique c'est servir la nation. Mhm. alors dañu gis ngeen nek ci ben mouvement buñu ñu and ànd pikin west Ouest. Tafa peut-être ñu nous sommes moy coordinateur mais lolu mouvement bi fan la jógee ñan ñoko représenter won woon ci le jot ak nan lañ def ba def coordinateur. Mhm, voilà merci beaucoup avant ñu dugg la politique peut-être pour brosser un peu par rapport à Kogapi, mhm. chaque année nous recevons ay volontaires canadiens. et que ñuy ñëw fi si ñun avec ak ñun mom moy indi formation yoy ngeen ak salon de l'emploi bi ak euh, lenen ak et que té ñom tamit ñu ngi de passage parce que dañuy bayyi sen lepp ñëw volontaire fi di ñu jàppale si suñuy programme ak suñuy activité et que en fait euh, ànd taxaw Pikine West lu ko indi du dara lu euh, sama benn papa bu baax boo xamante ne vraiment nit ku am diine nit ku am kàddu nit ku am engagement et kilifa bu ñëpp respecté muy père Mamadou Faye diko ko nuyu de passage di ko ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan ak wér bu mu fekkee xewal yëpp et moom moo en deux mille euh, en deux mille treize. Mhm. moom moo amoon initiative parce que moom daf na politique yàgg na si politique bu baax a baax ba ñëpp respecté ko amul dara lu ñaaw lu mu ci def. Mhm. parce que man dama doon ñaan yàlla su may dugg si politique bu ma ko jaarale si parti politique. Mhm. parce que li nekk ci parti politique yi des fois li ma siy gis nekk loom lu ma neex la. parce que day am ay saagante ndey day am ay xuloo day am ay xeex day am yu bon day am ay liggéeyante te yooyu sincèrement man bëgguma def lu noonu parce que kenn yareewu ma noonu. léegi nag moom laa demoon euh, vraiment waxtaan ak moom xamante ak moom. Mm-hmm. ba ñu waxtaanee nag ba juboo si la ñu créé ànd taxaw Pikine West mu créé ko. ba ñu ko créé nag après ñun si lañ intégré mouvement bi mu nekk un mouvement citoyen mm-hmm. boo xamante ne ni dafa nekk. développement en 2013. 2013 d'accord 2013 2013 2014. après on a participé aux élections. élections man mi bokkoon naa ci liste yi bokkoon naa si ñun déroulé sans moyen ni rien du tout. dañoo nekkoon ci commune bi di vraiment dem di waxtaan ak nit ñi di dérouler di def ay action yoo xamante ni dafay dimbali doomu aadama yi et yàlla dimbali ñu en 2014 ba ñuy def élection ñoo jël quatrième au niveau de la commune il y avait 14 kon saabu veut dire que ni euh, trois partis ñoo ñu rawoon defoon ngeen travail quoi. waaw société civile bi yëpp ñu ñoo si rawoon. te pourtant amoon na ñëpp ñu fi nekkoon a ah. ñu leen ñoo xam ñoo fi jiitu woon fu ëppoon ñu ay moyens. pour ne am na ñu bëri ñoo xam yi xamoon nañ leen fii bu baax ñoo amoon ay moyens yu bëree bëri bëri def lu ne. mais teewul ñun ñoo jëloon quatrième position et que société civile bi yëpp euh, mouvement citoyen yëpp ñun ñoo si rawoon ñun APR moom moo ñu rawoon mais Benno Bokk Yaakaar waa PDS ak waa Bës du Ñàkk ñoo ñëwoon en quatrième position ba tax ñu am ñaari conseillers au niveau au niveau de la mairie et que taxawaay boobu nag vraiment moom la ñu continuer di ko def di continuer di liggéey di liggéey liggéey bu am solo et benn moment nag góor gi moom dafa sentir ne que ni moom mag la. te am na si yoo xamante ni vraiment bu ko mm-hmm. xale mënee jarul nga koy dénk mag. après nag si la ñu vraiment woo waxtaan ak ñun. Mm-hmm. nañu man euh, léegi mag laa. Mm-hmm. kon donc te bëgg naa vraiment relève bi ak man sama patrimoine mu nekk lu ñu pérenniser. te vraiment xool naa ba xool mais gis naa ni yow am naa yaakaar ne war nga ko mën a def. kon donc man maay sa papa. man man mun naa nekk sax sa directeur de campagne jàppale la. pour que au moins nga mën a continuer liggéey bi loolu moom mooy indi vraiment euh, ànd taxawu Pikine West continuer ay activité am moo tax taxawuñu depuis 2017 après ñun dañoo enchaîner directement di def ay formation di def ay production de yaourt ah di def ay kits scolaires di jàppale les écoles associatives et cetera et cetera def nañ fi lu bëree bëri def ay émissions et tout pour rek gën a suñu bopp si euh, ci commune bi kon donc daal su résumer rek euh, loolu moom moo indi vraiment ànd taxaw Pikine Ouest góor gi daal moom moo vraiment yenneeku si ñun góor gi Mamadou Faye voilà mu nekk bu baax yal na yàlla yokk ko que euh, je le connais uh-huh. euh, mës nañ bokk ay ay jotaay uh-huh. euh, surtout le plus souvent ci ay ay daayira uh-huh. mais xam naa ko bu baax wax dëgg yàlla Ah, ah, ensuite li may li may dolli foofu moi euh, am na pas mal de formation yam xam te a koy def ñi ñaa ci tik sen beut mais est ce que le mouvement ànd taxaw Pikine Ouest assez représentatif manam quartier bu nek am ngeen fa base mm-hmm. fa ay représentant mm-hmm. comme ne parti politique defee ay maillage ci bir car quartier waaw en fait ñun bo xolé ñun suñu stratégie bokul ak stratégie wu parti quoi ñun bo xolé ñun li li nga xamanteni mo ñu gëna a dimbali moy ñun dañoo am ben actif mm-hmm. actif bi mom moy que ni bo défé 20 ans dans le développement communautaire et ñi si qu'une ñepp pratiquement c'est des acteurs de développement communautaire et que ku si nekk am de def sa ce gox et que lolu la ñu utiliser parce que en fait ko xam ne yorul institution yorul budget yorul dara nek di dérouler pour les populations kon koku war nañu y a am yaakaar ni bis boko joxé li nga xamante ni moom la population bi moom dina ko delloo si ñoom en fait ñun stratégie boobu la ñu utiliser et alhamdulilah aussi ça paye mm-hmm. parce que am na acteurs yu bëri yoo xamante ni dañ leen defaraloon te yàlla rek a tax dañ leen defaloon formation te fayuñu dara mm-hmm. yàlla rek a tax am femme yoo xam dañ leen gunge woon yàlla rek a tax am jeunes yoo xam dañ leen gunge ñu am liggéey te yàlla rek a tax et cetera et cetera et que ñooñu ñoo engagé wu ñëw fas yéene nañu gunge si li nga xamante ne nii moom la ñu jëm mais boo xoolee dans les zones là dans les quartiers quartier bu nekk aussi am nañ fa ay nit yoo xamante vraiment ñoom ñoo engagé wu si bir euh, bir coalition ànd taxaw. d'accord d'accord waaw euh, mooy Mustapha nag il va falloir aussi ñu am benn volet bi nga xam ne ñu aborder ko. Mhm. Euh, ñëpp xam nañ gagner élection au Sénégal fi mu ni une fois faut nga ànd ay coalition ben parti politique doyul ñaari parti politique doyul. ben mouvement doyul ñaari mouvement doyul. deug la am ngeen ancrage parce que euh, man fi ngeen di wax ma ngi ci tek sama beut li ngeen di def ci tek sama beut mais est ce que lolu doyna pour jël maire bi mhm. si on sait que ne maire bi fi nek dafa and ak wa bokk yaakar amna ci benen côté bi ñi nga xamantene ñoy coalition yewi askan bi mhm. ñu mën ci lim pur bu serigne moustapha si lim ci euh, mouvement and taxaw sénégal bu khalifa sall waye lim ci aussi euh, ñi nga xamantene mom moy bu ousmane sonko ak ñeneen ñi nga xam te ñu ngi ci ginnaaw parti boobu. léegi bu fekkee yéen da ngeen bëgg jël mairie Pikine Ouest. dem yéen kese est-ce que dina sotti. waaw merci beaucoup euh, Seydou si question bi question bu am solo la parce que ñun moom dañoo gëm suñu bopp. gëm nañ ni loolu war na mën a nekk parce que fii yàlla fi nekk yàlla moom mooy dogal yàlla moom mooy fal mooy folli mm-hmm. ñun loolu lañ gëm d'abord avant coalition avant dara di am kon donc avant coalition avant dara ñun dañoo engagé wu vraiment pour ak suñu coalition ñun ànd seeg ñun ci àndal ku mel ni xalifa ñaa mu nekk suñu mbokk nekk suñu xarit nekk ku baax nekk ku engagé ku am kàddu ande seeg yenen kilifa yo xamanteni ni ñu ngi ci biir xamna ni suma cité dina jum mais vraiment amna kilifa yu bari yoo xam dañu rejoindre pour coaliser wu ak ñom ak ak ñun kon donc ñun xaar ñu ba le ba coalition yeewu yeewit eh, askan wi ñew mhm. ñuy soog def coalition ñun dañu anticiper sur la coalition. Mhm. parce que tout au début ànd taxaw Pikine West rek la won mhm. mais légui bo xolé tur bi c'est la coalition ànd taxaw Pikine West. ça veut dire que ñoo gën yaatal am ñoo xam ne ñoom la ñu di liggéey si li nga xamante ni moom mooy jëmale askan wi kanam mais coalition yi am tamit loolu coalition yu baax la coalition yeewu askan wi ñun actuellement convié nañu benn rencontre ñoo ngi foofu euh, man waroon naa dem foofu teew si réunion bi tey mais émission yi moo tax dew ma am na ku ñu représenté foofu ah coalition gëm sa bopp aussi tamit moo ngi fi ah, ak yeneen ñi nga xamante ne nii ñu ngi fi nekk pour di taxaw pour euh, coaliser avec les organisations pour mën pour mën pour mën a jël la mairie et que coalition yi dafa nekk lu am solo Seydou xam nga lu tax mm-hmm. Mm-hmm. parce que en fait bu fekkee ne ñun ñëpp commune bi moom moo ñu tax a jóg bu mm-hmm. fekkee ñun ñëpp askan bi moom moo ñu tax a jóg kon kenn warul camper position pour wax ni man maay nekk maire par la force man lo l'agis gis moo euh, si peut-être négociation ak discussion yi gaay amna stratégie yo xam dañ koy teural parce que comme parti yi nga lim légui légui du parti yoy kasse amna yenen mouvement yu nek ci biir yo xamanteni aussi ils sont intéressés par euh, par la par la mairie mais xamna dinañ toog waxtan suñu biir pour pour xol le profil parce que en fait bu fekkee dañu waxtaan ba d'accord ni dañuy dem coalition après dinañ xool dinañ xool ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg nekk candidat bu ñu xoolee bu bu ñu amee ñi nga xam ne bëgg nekk candidat on va mettre en place un comité un comité ad hoc wala un jury qui va peut-être euh, échanger avec ces candidats là waxtaan ak ñoom après jury boobu moom mooy xool candidat bi nga xamante ni moom lañ ni bu ñu ko portee ñëpp dinañ ci ànd ñëpp dinañ ci vraiment am consensus pour que ñu mën a jëlee li fi nekk en fait ci loolu la ñu nekk di si di si liggéey mais man daal li ma wax gars yi moom mooy bu fekkee ni daal mairie bi rek moo ñu tax a jóg bu fekkee askan bi moom moo ñu tax a jóg bu fekkee jëlee li fi nekk moom moo ñu tax

Euh, mu ne ma man je suis un homme intègre Tafa est un homme intègre ñun daal mën nañoo ànd. <laughs> man noonu la ma ko waxee. mu ne ma je suis un homme intègre Moustapha est un homme intègre ñun ñaa mën nañoo ànd. xam naa nag du du ñàkk di ngeen mës a gisante ngeen waxtaan. parce que xam naa ne man lantinoor laay doon dara du takk sama mhm. si yow. Mhm. mais incha allah dinañ dellu siwaat léegi ñu waxtaanee question euh, beeg yi jëm ci question politique yi. Mhm. dañuy dem léegi publicité incha allah dellu siwaat xool publicité bi nga xam te euh, a def offre de bourse pour Vous avez le bac et vous aimerez continuer vos études dans une grande école Alors ne vous inquiétez pas, Isaac Pikin est là pour vous servir. Après une première rentrée réussie, Isaac Pikin vous ouvre à nouveau ses portes. Oui, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour cette deuxième rentrée dans la plus grande école de la banlieue. Avec des salles de cours espacieuses, confortables et un personnel dynamique et professionnel. À Isaac Pekin, tous les diplômes sont reconnus par le CAMES. Banque, finance et assurance, création et gestion des entreprises, comptabilité, gestion et finance, commerce et affaires internationales, transport et logistique, gestion des ressources humaines, journalisme et communication et marketing et communication. Vous qui avez le niveau bac, vous pouvez étudier à Isaac Pikin. Comment ça En s'inscrivant à ces différentes filières avec un diplôme de technicien, à savoir DT, comptabilité gestion, commerce international, marketing, gestion des entreprises, banque assurance, transport et logistique, informatique et secrétariat bureautique. Et ça ne s'arrête pas là. Pour cette deuxième rentrée, votre école de prestige vous offre des bourses d'études et des permis de conduire à des prix défiants toute concurrence. Alors, chers élèves et étudiants, une seule adresse à retenir. Buntu en face l'école Notre-Dame du Cap-Vert. Pour nous joindre, appelez le 33 854 98 54 ou le 77 365 51 78. N'oubliez pas, à Isaac Pikin, c'est apprendre pour entreprendre. ñi nga xamante ne waa ISEC euh, fas yéene dimbali ndaw yi ci seen ci seen njàng parce que xam nga ne ici dans la banlieue am na lépp matewul waaye euh, bourse yeeg yu bëri euh, encadrement bi yëpp ISEC Pikine ak en partenariat avec Canal Banlieue dañ koy def loolu nag moo nekkoon page publicitaire bi dañuy dellu si waat biir waxtaan bi ñu ngi fàttali ñu ngi ànd ak Moustapha Guèye Euh, dëkk fii si Pikine Ouest di candidat à la mairie de Pikine Ouest waaye aussi euh, nekk ki nga xam te ne moom mooy directeur exécutif bu euh, Kogapi ñëpp xam nañu Kogapi fi à Pikine Moustapha ci biir waxtaan bi bi ñu ci génn léegi léegi di dem mhm. fi nga xam te ne moom mooy publicité dañ doon waaj a li nga xamante ne moom mooy caution mhm. bi nga xamante ne moom la ñu war a joxe caution bi xaw ma noo koy apprécier quinze millions mhm. bëri na bëriwul est-ce que laalu na ci démocratie est-ce que laalu na ci Euh, ci yoon ndax du mhm. pouvoir censitaire nga xamante ne ñi am xaalis rek la ñuy faral. Mhm. Euh, loolu aussi bëggoon naa ci nga am ci xam-xam balaa ñu. voilà merci beaucoup euh, Seydou et je pense que loolu moom ñu ñëpp xam nañu teguwul ci yoon quoi teguwul ci teguwul ci démocratie en fait ñoom ñoo ko def exprès quoi parce que élection yoo xamante ni musul am caution te loolu amul fenn si monde bi quoi voilà foo xamante ni da nga dem élection municipale di joxe caution 15 millions amul fenn am Sénégal Sénégal je sais que ni vraiment au pouvoir exprès parce que fait euh, gars dañ leen ainsi ah, yu après trop trop trop c'est pourquoi nous voulons vraiment les certains candidats mm-hmm. euh, surtout les jeunes parce que nous nañ engouement jeunes am élection et que nous ñu sentir aussi et les primes votants et tout euh, man avons la que ni ñom dit motax ñu ñu tit yobu caution bi 15 millions quoi mais proposition yi mi ngi nekkoon entre euh, entre 10 millions hein ak euh, ak 20 millions ñom ñu tranché def 15 millions mais 5 millions sax war ko won nek parce que en fait war ñoo nekk si dëkk boo xamante ne nii képp ku ëpp doole rek yow yaay yow yaay yow yaay briguer yenn mandat yi yow yaay yor yenn mandat yi or ngaa ëpp nit ñi xaalis te or que ni yow intelligence zéro mm-hmm. ay fonction te amoo benn intelligence mën ngaa am xaalis bu bëree bëri te bu ñu la joxee mairie bi di nga ko danga koy caaxaanee la preuve en est que gis nga ñu bari fii am nañ ay post am nañ ay am nañ am nañ alal bu bëree bari mais malheureusement ni ñuy doxalee bokkul ak ni askan wi li askan wi bëgg kon donc man je dirais que ni vraiment c'est antidémocratique et que li jàll mom jàll na mais téwul euh, gaay ñu ngi lal seen i hein, pour participer ci affaire yi parce que du ñu ko bayé nonu quoi voilà parce que bu fekkon individuellement individuellement peut-être mën na mettre ci candidat yu bari bari mais je pense que avec la dynamique bi ñuy dem ni qui est vraiment de mettre en place la coalition des coalitions je pense que buñ ko défé ku nekk bu joxé dara rek après pour ñu def caution day nekk lo xamanteni ni lu lu yomb la quoi voilà c'est des stratégies que les gens sont sont en train de de monter. am na stratégie aussi yom ñu ngi koy lal mais yoy duñ ko wax. Mhm. waaw yooyu ay stratégie si suuf la yo xam ne ñu ngi koy di si waxtaan. diko lal pour mën vraiment caution yi bañ a ben benn problème. d'accord mais est ce que est ce que est ce que yéen do len duut baramu tuma nguur gi. Mhm. Euh, ngir di ko reproché mom moom candidat à la base mais ay nitam lay jema chercher imposer imposé waat parce que bo xolé maire yu bari wa Benno Bokk yaakar ñoko yor. Mhm. te buñu lajé 15 millions. Euh, ab Seydou Sagna boo ko 15 millions tay lu ko population beug beug beug beug beug mhm. pour mu lijjanti 15 millions day jafé mhm. mais le maire sortant boko ko 15 millions mën na ko génne. Mhm. est-ce que lolu du rôle bi nga xamante gouvernant yi manam le euh, la ñu ñu tudd ko mom moko jouer pour meuna imposer wat ces ces ces mais bien sûr moy li ma la wax légui légui rek quoi peut-être yow ya len tudd mais je pense que ñoom ñoo yor nguur gi ñoom ñoo def lolu parce que comme li président wax président de la république Macky Sall wax nako voilà déglu len ma <laughs> gox investir ma koy ça veut dire que ni donc mom tek na pour gagner quoi mais nous lu ko jaral ñun jaral nañu lu parce que quoi les les les les maires la quasi totalité des maires ont montré leurs limites parce que depuis 7 ans nous ngi mais gis nga ba li ñuy quoi donc nous euh, exprès je sais que ni du nekk loo xam ne lu yomb la ci ñom quoi voilà liñu ñu foogoon ni noonu lay démé mën na bañ a demee quoi gaay dinañ bok ci élection yi té dinañ leen gagné ci maire yépp récupérer ko doxal ko jaamu ci yalla mais eh, est-ce que est-ce que aussi euh, parce que dañu gis dynamique génie dañu dañoo bari. koy mhm. wax légui mais aussi les agents de ñi nga xam c'est des personnes ñi nga xam c'est des c'est des c'est des c'est des agents de développement. Mhm. Euh, surtout ñi am dañuy militer à la à la base. Mhm. mel ni yow ak ñeneen ak ñeneen dañu bari ci feeñal sen candidature. Euh, loolu itam bu amee ñu yóbbu affaire bi à 15 millions. Mhm. kon lan mooy doon seen pexe ba nga xam te ne li ngeen mën a maintenir ces candidatures. Mhm. waaye aussi bokk ci li nga xam te ne moom mooy élection yi ba pare mhm. jéem a am quinze millions. waaw man stratégie bi lan lay en fait loolu dama koy rafetlu grand Seydou loolu dama koy rafetlu bu baax a baax parce que agent yooyu dañoo nekk les agents de changement mooy les agents de développement dañu nekk des nit yoo xam ne dañoo nekk si biir gox yi di fa liggéey liggéey bu am solo à titre bénévole nag kenn fayu leen. ñoom ñoo dem uti seen i partenaire uti seen dërëm ak seen i ñaar dërëm pour dimbali doomu aadama yi kon donc ñooñu am nañ yaakaar ni bis bu ñu leen dénkee maire yi mën nañ def plus que ça parce que dinañ am institution en même temps am budget am possibilité di dem di def la coopération euh, décentralisée ou bien la coopération internationale kon donc man damay vraiment gën leen encourager gën leen pousse gën leen ñaax que ñu gën a am fulla gëna am fayda gëna am taxaway gëna am jom pour dem ci élection yi même ku ci 15 millions tëj sax amoo foo koy kiiwee dama nga dugg ci benn coalition pour que au moins ngeen mëna a àndandoo joxante loxo pour dem ci euh, dem ci élection yi té bo xolé la stratégie c'est ça moy stratégie bi mu la wax sang parce que bo xolé ay 10 partis wala 20 partis buñ ko séké ku nekk bu amé lu mu joxe mais lool pour caution bi ñu def ko du doon benn problème beneen bi stop moy luma la wax sànq la ko wax parce que en fait stratégie pexe bu ñu nëbbu la si suuf quoi si suuf yu ñu lonk yoo xamante ni waxaguñ ko mm-hmm. waaw yooyu moom c'est pour euh, parce que obstacle bu ñu la ko tegalee en tant que jeune en tant que acteur mm-hmm. boo yàggee développé mais da xam ne lii obstacle la obstacle bu ñu la ko tegalee nga taxaw noonu mm-hmm. obstacle bu ñu la ko tegalee mais da ut noo ko tëbee parce que en réalité mooy comme li kilifa gi di wax con ñaa ko nuyu la politique ay pexe la yooyu lal kon donc obstacle bu taxaw sa kanam rek ñun ñoo ngi waxtaan di xool nan la ñuy def pour mën ko contourner pour mën a vraiment participer aux aux élections mais su fekkee dañ la tegal 15 millions rek après nga lem sa gaaga ah day mel ni yow li nga doon wax gëmoo ko quoi te ñun suñu slogan loolu la quoi moom mooy pare rek waaw suñu slogan mooy amul ragal amul réculer pare rek te dañuy li ñuy dem dañ ciy dem jusqu'au bout incha allah. kenn naa tablewul bëgg nga nekk maire. Mhm. Euh, xëy na ñi may seetaan wax nañ dinañu wax ne mën na nekk maire. Mhm. loolu ñoom laa koy ab bàyyil mais lan moo fonde maanaam mhm. lan moo la lan moo la dugg ba nga bëgg a yor commune bi. en fait li ma dugg du lenn lu dul juddoo fii. màggee fi yaroo fi jàngee fi def comme li Pikinois yëpp di def. Pikine West fii laa fii laa fii laa defee sama lépp fii laa footballé nawetaan taq fi capitaine dagoudan daan mhm. fii laa joué cadet jouer fi senior jouer AS Pikine hein, et aussi def fi développement durant des années vingt ans ñu nek di yëngu ci développement di gis askan wi li ñi dund di jege nit ñi xam exactement souffrance bi nga xamante mom la population yi di dund mais surtout jeunes yi ak famille ak xalé yu ndaw yi ñu ngi vraiment dund lu metti Seydou ñu ñëpp xam nañu actuellement dëkk bi dafa tar dëkk bi dafa taxaw ñëpp xam nañu dans les communes les gens sont en train de souffrir parce que en fait li nga xamante ne nii yaakaaroon nañ ko suñu maire yi gisuñu ko mooy que ñoom dañu ñëwoon jaay ñu ay programme ay projet yu baax yoo xamante ni foogoon nañ ni voilà ñoom bu ñu toogee ñun souffrance yooyu après dañ ciy génn quoi mais en réalité vraiment génn ñu si souffrance yooyu loolu moo ma motiver en tant que acteur de développement tamay gis ni nit ñi ñoo nekk di dund lu metti te ñu mën a teg ay pexe pour mën leen ci ñun nekk di teg ay pexe pour génne si doomu aadama sans rien du tout kon donc loolu bokk na si samay motivation pour que ma ma engagé ci affaire yi bi beneen bi ci c'est pour être utile quoi en fait je veux être su ma neexoon li li ma yàlla di suturaale mën naa ci suturawu dem tëdd sama kër ah maag sama njaboot mais je veux être je veux être utile pour les populations je veux contribuer si li gox bi kanam comme nous avons fait ce développement nous continuer si vraiment euh, au niveau de la mer amul sax ay ah, man <laughs> pour nit ñi dañ gis képp ku bëgg rek après ga parce que mhm. suñu que gi veux mu père Mamadou Fay ànduma ak yéen ànd politique dama bëgg ànd ak yéen ànd gor ak nawle muy politique sans politique dañuy continuer di dund di continuer di waxtaan di continuer di def suñu développement kon donc kooku euh, vraiment lu mu waxoon noonu muy góor gi tey ba léegi loolu la ñuy dund te ngor googu ak noole boobu ñu doon ànd moom moo indiwaat tey ñu renouveler waat suñu engagement pour mën a pour mën a dem ci mbir mi aussi tamit moom moo ma jox feu vert voilà li ñuy wax euh, ku ñeme dañ laa dee moom moom moo jox feu vert mm-hmm. parce que ku dem ba ne la kilifa bu ñëpp soxla ñëpp di ko seet mm-hmm. demul ci ñoom ñëpp di ko diglu ne demul ci ñoom mm-hmm. mu ni ma carrément pare naa pour ànd ak yow nekk sax sa directeur de campagne jàppale la dimbali la di la ñaanal si zaahir ak si baatin nga koy gis fu ne kon kooku vraiment bu la jiitalee aussi tamit doo ragal da ngay am engagement bu dëgër këj pour mën a dem si li nga xamante ni moom le le développement beneen bi si topp aussi tamit y' a beaucoup d' acteurs communautaires yoo xamante ne nii et aussi les populations yi nga daan jàppale di leen dimbali ñooñu tamit ñoo taxaw ne mais yow war nga mën a dem ci lii war nga mën a dem ci euh, ci euh, ci mairie ñooñu ñu ngi séntu ne yow yaa ngi leen di yaa ngi leen di dimbali tey yoroo xaalis seen xaalis kon boo yoree seen xaalis dañuy jàpp ne day gën a yomb voilà et ñooñu aussi tamit ñi ñu gën a motiver si la si la bokk quoi et bi mujj moom mooy suñu leadership bi nga xam ñu ngi koy incarné au niveau de la commune et au delà de la commune au niveau du Sénégal mais dans le département de Pikine à travers le conseil de la jeunesse. bi nga xamante ne ni man maa jiite arrondissement Dagoudane bi. et man maa nekkoon le président du conseil local de la jeunesse de Pikine Ouest. et que yooyu tamit bokk na si ay motivation yoo xamante ne nii ak leadership bi ñu euh, euh, nañu ñu ni ah mais lii war nañ si mën a engagé war nañ si mën a bay li nga xamante ni mooy suñu waar. mais mais mais man le point le point satisfaisant bi nga xamanteni mang koy gis mang koy jàngat ci élection yo au Sénégal moy mhm. euh wax deug yalla euh engouement bi jeune yi am ci ci ci ci dem ci élection yi mhm. au delà de dem voter ci damay gis ay candidats jeune yi xam dama len di encourager mhm. parfois da ngay gis kuma envoyer sa CV wala kuma envoyer sa photo dama na mais ki xalé la mais espoir ci xalé lañ koy tek aussi absolument euh, mag wax deug yàlla duñ na jeexal na mais expérience am war na ko mën a jox xale parce que xale moo am doole am taxawaay pour mu pour mu mën a liggéey lu demee noonu mhm. euh, mais dafa au delà de ça yaa ngi wax sànq am ngeen ñaari conseil mhm. voilà ak ce mouvement ànd taxawu Pikine mhm. euh, quel est votre rapport avec euh, le maire le maire il est de de la paire uh-huh. lan moo doon seen rapport ak rapport bu rafet rapport bu macha allah et que sama xarit la mm. c'est un frère parce que en fait on a partagé ensemble le conseil de la jeunesse moom vraiment kuy joxe cër la mm. et ku respecté doomu aadama la même bu ma fekkee si jotaay sax danaan yéen ñëpp maay seen maire mais Moustapha mooy sama président parce que de 2007 à 2015 man maa nekkoon euh, président am au niveau du conseil local de la jeunesse de de Pikine Ouest ñu am ay relations yu rafet ñu liggéey liggéey bu rafet au niveau de la commune et que loolu mooy suñu relation kon donc amul benn relation bu bu bu animosité bu am suñu diggante muy man ak moom ak euh, vraiment ñi nga xamante ne nii ñoom lay euh, ñoom lay àndal ku ma jox cër la man tamit jox naa ko cër boobu parce que événement yu bëri yu ñu daan def dañ ko daan invité mu ñëw ñëwee présider ko et tout après dem. du am dara lu ñaaw te boo xoolee politique affaire jëkkër ñaar la passé. politique du ak la. ñëpp dañu war a jël niveau quoi. pour yàlla di di di wax ni moom mooy nekk maire. yàlla tëdd na ko quoi. kon boog jarul di wax lu ñaaw loo xamante ni suba après dañuy tase ni di sëgg wala et cetera. parce que li nga wax dëgg parce que am na panel yi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ci bokk. Mm-hmm. Euh, surtout euh, beaucoup de jeunes de Tigre Bess. Ah. mais parfois da ngay gis wax yu ñaaw yi nga xam te ne da ngay bëgg génn panel bi. mais boo génnee aussi da ngay rus dañ naan dañ naan kii bokkoon na ci génn. mais li nga wax laay dëggal gis nga bu nit ñi di waxante yu rafet. di waxante yu baax dina tax suñu suñu diggante dina rafet suñu entretien ay ay nit bu ñu àndee ne ñoom it dañu bëgg a suqali Pikine Ouest yaakaar naa seen ànd woon na ma. wallaahi seen seen en fait dafa am ñu rax si nit ñi ñoo xamante ne nii waruñu si woon bokk en fait mbir mi daal ñu si dugg ñoo xam ne waruñu si woon bokk parce que nekkul suñu jëmukaay léegi ñooñu nag seen intérêt la défendre léegi kuy défendre intérêt bi nag boo laalee intérêt boobu mais day day dal sa kaw. loolu la mais su fekkee ni intérêt global bi ñëpp moom moo ñu tax a jóg. te defar rek moo ñu tax a jóg pour man warul am lu ñaaw pour man warul am loo xamante vraiment ay wax yu yu yu. yu ñàkk lay nekk waru am loolu daal man de kenn du ma si ma si woo tamit du ma panel boobu ngay wax ñoo ko mais gis nga man bu amee lu am mais le maire aussi mosuma ko gis mu wax non mais c'est vrai prend toujours de la hauteur parce que man mosuma ko gis si panel bi mm-hmm. mu wax mu ñaaw mu def déclaration bu parce que nit ki même bu fi nekkul des mais au-delà du panel mm-hmm. avant, naa léeg-léeg la kuy mm-hmm. parce que fu mu la fekk la joxe cër la mais nag li ñuy wax buur ayu des fois am na ñoo xamante ne ñoom def loo xamante ne wala wax moom digalu leen ko moom sant leen ko parce que ñoom seen intérêt la ñuy dépendre mais moom kuy joxe cër la ku ku ku ku am respect si mais man dama xajal place bi nga mën a ñëw <laughs> wax ji loolay coow li. yow yow kon nga nekk woon président daal na nga ñëw jiite war ko. non moom xam na loolu. Ah. moom c'est très bien. mais xam na ni euh, que ni ñun on peut faire mieux quoi. d'accord au-delà de la de la personne du du monsieur le maire ñu fàttali

et que mais je sais que ni moo leen def lu ëpp quoi parce que à un certain moment aussi tamit ñoo tardé si lu bëree bëri bëri bëri voilà Pape moo bi ñu koy jox ministère gis nga moo. pour problème la quoi. kon bi ñu ko joxee ministère su liggéey bi fii dafa tàggatémbe. dafa bu baax parce que en fait moment boobu noonu nekkatu fii. moment boobu mu ngi doon nekk ministère et lu bëree bëri bëri da ko fi rëcc. Mhm. ay problème yu bëree bëri bëri am fii. Ah et que waaw oui mais bien sûr mais euh, tey am na ñu mu tàqalikool ñu bëri ñoo xamante ni ñoo àndoon depuis depuis début bi. Mhm. la moo tax ñu mu tàqaliko ak ñoom parce que il y eu des problèmes. et que yooyu yëpp c' est des yi nga xamante ni ah xaw laa ko mën tuddee xaw mais mais problème de gestion la problème mais man loolu man xaw ko parce que nekkuma mairie ba man je que loolu peut être ñoom ñi nekk biir mairie ba ñoom ñoo gën a mën a pour tontu ci loolu. mais man constat laay def rek par rapport ak li nga xamante nii moom laa doon gis. mu doon dox di normal. jékki-jékki ñooñu gisatuma leen fa. Hmm. et vraiment te ñooñu nekkoon nañ ay pion yu baax yoo xamante ne ñoon ànd ak moom di liggéey liggéey bu rafet bu am solo problème yi ma gisatuma fa ñooñu ñooñu nga gis leen waxtaan ak ñoom nga xam ni carrément problème daa am kon donc ça veut dire que ni loolu warul woon euh, vraiment euh, nekk loo xam ne luy am si bilan bi la quoi. Mm-hmm. mais peut-être nag noonu la mu doon demee. Mm-hmm. beneen bis taw am na lu bari lu mu waroon def. Mm-hmm. léegi contrôle citoyen Seydou dafa dépassé. Euh, mairie bi taal na lampe, yi. Mhm. wala mairie bi subventionné na ASC yi. Mhm. léegi contrôle citoyen dafa dépassé foofu mhm. ñaata la mairie bi le trésor ak ñaata la subventionné. te hormis les hormis les subventions normalement on devrait mettre en place des des stratégies. des projets pour les pour ces ASC là ñaata ASC lañ fi am neuf ASC. chaque chaque chaque année nga jox ASC bi 500000 mu dem regroupement xon dem nawetaan après jeex na quoi ba pare dese ay bor. mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place des stratégies des projets pour chaque ASC. ASC bu nekk la mairie la ma war naa jox 500000 du ma la jox 500000 250000 laa lay jox yeneen 250000 ma mën naa am lu ma si teg pour créer la benn projet. boo xamante ni peut projet événementiel. location bâche wala location siège wala beneen projet boo xamante ni ASC bi moom la gën a jàpp ni bu ko defee biir goxam dina créer ay emploi et aussi dina générer ay revenus. Mhm. tey la mairie waroon na mën a am initiative yu mel noonu de même que pour les femmes mhm. waroon na mën a am lu mel noonu tey normalement suñu commune waroon na mën a am benn maison communautaire bu mag. Mhm. l'ensemble des organisations de développement il faut les retrouver wu la cellule des des personnes handicapées le cadre de consultation des femmes les le conseil local de la jeunesse hein, la zone etc. Il faut nañu mën am maison pour mag biir Pikine Ouest boo xam ne fa pour le développement de la commune mais malheureusement aujourd'hui euh, amul cité yu le système de parrainage des enfants dans les écoles Il na meuna am tay amul tey tey tey tey moo tax ñun suñu programme li nekk au cœur c'est la valorisation des ressources humaines mm-hmm. su ma ko expliquer ba mu leer na gars yi dañ koy <laughs> sàcc mais nañ koy defee du baax quoi parce que bëgguma ñu invité ñu sàcc idée <laughs> c'est ça <laughs> waaw loolu tamit moom ma ko nangu ku bëgg rek idée na nga na nga na xar sa xutu xat xaw ma ngi noonu waaw defal sa bopp sa idée du nangu invité nit mu eh, parce que plagiat dafa gaaw aussi absolument euh, nga xam ne day tëju di xalaat bokkul ak ki nga xam te day bàyyi ba nga xalaat mu jël ko ñoom ñaar bokkuñu mérite mais li nga wax fii aussi mhm. lu xel mën a nangu la parce que maison communautaire parce que dégg naa gars di ko jàmbat ba gars naan euh, espace bi nga xamante ne jox nañu ko mhm. fa def euh, maison communautaire mhm. Euh, maison communautaire centre pour des femmes. Mhm. Euh, espace pour la zone. Mhm. ak li nga xam te ne mooy CLC ak affaire yooyu yaakaar naa loolu ko defee dina am solo te contribution lay doon. Euh, mais au au delà de ça euh Moustapha. Mhm. bu fekkone dañ néwon nga noter je ne dis pas ñu noté le maire parce que le maire c'est ton ami. boo ko bëggee noté day jafé mais sa gestion. gestion mooy li mu liggéey li mu waroon def def ko. fi mu ci tollu tay ndax def na 5 ans ba pare. ñu doole ko yenen ñaari at yi nga xam te bénéfice lañ ko tuddee. Uh-huh. buñ la waxoon nga noter ko tey. 20 sur 20 lay 15 mhm. lay 5 lay est-ce que dina am moyen mhm. je ne dis pas le le maire en tant que mhm. personne. mais la gestion bi nga xamante def nako. mais en fait euh, tay su don vraiment la gestion par rapport à ni parce que nek mu au cœur de la de la gestion mais bo gisé rek di nga xam quoi parce que da fay nat. Tay par exemple tay bu a ni la maire dafa un budget de 800 millions. loolu loolu et que lu mu dee di nga recouvrer dina am loo recouvrer lu am solo loo xamante ni war nga si mën a dérouler. Mm-hmm. kon donc nañu calculer depuis euh, les sept ans ñaata la recouvrer si xaalis ak ñaata la dépensé ak lan la ko def ñun en fait foofu lañ koy xaar ñaata la recouvrer si xaalis ñaata la génne trésor ñaata la dépensé ak fan la ko def. ak lan la ko def léegi su ko defee ñun dinañu mën a am possibilité pour mën a analyser exactement li nga xamante ne nii la réaliser mais. boo koy xool ni de visu di nga xam ne exactement que ni des na quoi waaw boo ko doon noté moom du am moyen quoi parce que vraiment lu manqué lu bëree bëri loo ni waroon na am te amul te boo xoolee Pikine Ouest ay ressources humaines yu bëree bëri bëri yoo xamante ni tey bu ñu leen utiliser woon yaatal affaire yi ñëpp que ni li ñu bëgg dëgg mën nañ ko mën nañ ko am mais malheureusement c'est kon donc man su ma ko doon noté voilà damay wax ni amul moyen quoi amul moyen mais

kon donc fii lan nga fi mën a làmb lu concret loo xamante ne nii vraiment ñi ñëpp apprécier nañ ko bu baax quoi des na balaa nga ko doon xam tey nga jël sa nga jël sa micro yi nga def reportage dans les 24 quartiers mm-hmm. quartier bu nekk def fa 5 minutes rek laaj benn xale benn pa ak benn maire nga laaj leen rek par rapport à la gestion di nga gis exactement li ma lay wax lan la quoi nga boo jëlee les 24 quartiers quartier bu nekk nga jël fa 3 di nga am benn nombre boo xamante ne nii nombre bu légitime la pour mën la wax exactement la gestion de la collectivité et nan la ko nan la ko population yi gisee quoi mais man personnellement en tant que consultant man noonu laa gisee mbiri quoi li waroon am dëgg-dëgg amul des na quoi voilà il pourrait vraiment mieux mais comme que def na sept ans ba sept na maye am keneen ku ñëw man ma ñëw toog doxal quoi voilà loolu la. waaw loolu yoo xam naa du ko bañ parce que ñaar ay sama gaañ la moom moom sama waaye la <laughs> ñi nekk fii ñëpp te ñuy politique ñëpp samay gaañ lañ aw see kenn xaar ma yàlla. te loolu tamit sant yàlla la parce que man su ma doon ñaan aussi loolu laay ñaan que ñëpp nañu bokk ndey bokk bàyyi mu bañ am benn problème mu bañ am benn divergence boo xam ne dafay am entre les politiques quoi même entre les militants sax warul am. su ko defee ñu joxante loxo mais loolu parce que parce que aussi li nga wax dëgg la benn kër kii mën na ah. faral Pam donc kii faral kii te ñooy bokk ndey ak bay mais am na kilifa am na bu ma woo ne ma Moustapha ma ne ko naam mënuma la quasi totalité des jeunes yi nekk ci man dañu am fa fu làkk fayda am fa ay poste de responsabilité neen ma yaa leen formé te noonu la demee si ñoom ñëpp nag si koo dem rek hmm. am na benn jeune wala ñaari jeune wala ñetti jeunes yoo xamante ni man maa leen formé kon donc loolu sant yàlla la ça veut dire kon ñu ñëpp kon benn lañ quoi kon loolu aussi li muy wane ne mooy yow amoo droit former nit jox ko nit ba pare amaat ak moom xaar yàlla ko def loolu aussi loolu aussi ñaanuma yàlla loolu vraiment mais euh, Tafa mënuñu jeexal euh, sunu émission aussi tey euh, fii ku fi toog dañuy ñaan yàlla bu gënee ci yow nga nekk maire waaw dañuy dañuy dañu lay laaj aussi bu fekkente ne yàlla def na au soir du du 23. Mhm. ñu jëm le 24 ñu ne Moustapha Guèye li ñu programme maire Pikine Ouest. Mhm. Euh, lan mooy doon boo ñëwee toog ci service say ambition yu njëkk. Uh-huh. lan nga fas yéene njëkk a jubbanti. Uh-huh. lan nga fas yéene njëkk a defal sa commune. Uh-huh. waaw merci beaucoup Seydou vraiment question boobu dama si content trop parce que en fait euh, tey bu fekkoon ne loolu am na te maa ngi ñaan yàlla mu am ak jàmm ak salaam. et que ñun ñëpp ñi nga xam ñoo si nekkoon tamit ñu àndandoo si gérer li may njëkk a xalaat mon mooy def évaluation par rapport à li fi voilà il faut faire l'état des lieux mon mooy que les sept ans yi nga xamante ni euh, vraiment le maire nek na ko fi lan la def lan mom moy ses forces ses faiblesses lan la jot def lan la bëggoon def est ce qu'il est ce qu'il y a un plan local de développement est ce qu'il y a des PDQ Hein, des plans locaux de de de quartier est ce que am na wala amul loolu laay njëkk a su féké ni amul ma xol nan lay def ba mën a def ben analyse situationnelle au niveau de au niveau de la commune pardon dans les 24 dans les 24 quartiers quartier vous vraiment def le tout ba def diagnostic les problèmes mhm. et aussi les solutions les forces et les faiblesses mhm. et les recommandations def bien genre analyse quoi Pour mhm. les forces les faiblesses les menaces et les opportunités dans chaque quartier et beaucoup de faire, dans chaque quartier dina la permettre le plan euh, le plan le plan de développement du quartier et que de regrouper les les plans ça, vous permettra d'avoir le plan local de développement mhm. de, la commune. Et que moi en fait, stratégie boobu laa dérouler parce que beaucoup def du pilotage à vue. Mhm. taf yëngal tëb rek def dara mhm. le vraiment donc nek na ci li nga xamanteni nek na sama xel te vraiment xamna nuñ koy defee parce que def nañ ko defaat ko defaat ko avec les Canadiens. Mm-hmm. kon donc def ko du nek lo xamanteni lu du du nekk luy am problème la parce que on pourra avoir un plan stratégique de développement pour des années mm-hmm. pour la commune de Pikine Ouest nga xam même ñun buñ fi juggé sax ki ñëwaat bu ñëwé day top ci loolu après né liggéey kon donc analyse bobu lu analyse bu am solo benen bis top mom moy que ni suñu ma joxone mairie bi eh, devanture maire bi pour changer ko lu yomb loolu nak bëgguma si woon wax parce que xamane dama wax ko gaay dem taf yëngal taf changer ko quoi uh-huh. mais buñ mako ma ko joxoon gis nga lima def école 4 buñ mako ma du dara eh, katcha waxal jam gis nga lima fa def ay banc yo xamanteni ni c'est de la récupération tay mairie buñ mako ñu même pas une semaine ma changer façade mairie bi wallahi wal azim avec les moyens du bord tak tak ku fo romb di nga xolat mairie bi te je pense que aussi tamit lu am solo la pour vraiment une une institution comme euh, comme la nôtre quoi voilà yooyu daal laa xam ne daal nekk na yoo xam ne nii léegi am na la ko dolli parce que yow diggante partenariat international da nga ci yëngu mhm. eh, ndax xalaat nga maire bi nekk en partenariat avec des villes soit en Europe soit mhm. en Asie ba nga xamante ne ñu jox ñoom le plus value ñu ñoo mën ko installé fii soit li li nga xamante ne xale dinañ ci mën a yëngu wala yu demee noonu. Mhm. mais euh, mooy li ma la wax sànq boo amul un plan local de développement wala un plan pour nga am ay partenaires day jafe. parce que li ngay def comme ay programme da nga koy improviser te ñoom partenaire bëgguñu kuy improviser ñoom li ñu bëgg mooy kuy planifier man déjà am naa sama loxo ay partenaires yoo xamante ne nii je sais bu ñu ma joxee mairie bi ñooñu pour ñu ñëw day yomb parce que déjà ñoo ngi ñëw te yoruma mairie yoruma dara wax naa la maa ngi liggéey ak la GIZ c'est la coopération allemande wax naa la maa ngi liggéey ak la coopération canadienne moom mooy le CC le centre de coopération internationale ngi liggéey ak waa

def nañ ko actuellement ni mhm. avec mairie avec la avec sans mairie nañ ko déroulé. mais nous buñu une institution mhm. avec le budget. day nek lo Je ni day gëna day gëna yomb dafa bi euh, dama ko avant dernière question lay doon balanga tagoto mhm. euh moy euh, li nga wax dafa am solo sama inspiré moy ay nit buñu andé rek mo xëc sen bir ak ku euh, mairie tey boo ko jëloon di am ñi xam te ne di leen woo ñu liggéey parce que xam nga ne seen loxo set na. ban message ba paix ngay mën a lancer ba nga xam te ne dina am élection ci jàmm. militants yi dem voté ci jàmm dellu si jàmm ñu xam ne lépp Pikine West kese mhm. waaw message de paix bu may woote pour wax ne ñëpp ñoo bokk Pikine West ñun ñëpp ñoo am ay yéene rafet euh, Pikine West te boo xoolee le combat sax c'est au-delà de Pikine West Seydou. boo xoolee aujourd'hui tey on devrait avoir des personnes ça veut dire que kon donc xeex bi nekkul vraiment pour Pikine Ouest kese quoi pour ñun kese kon donc na ñëpp ànd ak dal comme nous ñu ko en 2014 2014 def nañ élection ba pare 14 dix nañu amoon affaire yi di gars yi di rombante nii mais mu am ay waxtaan ay mbalak xam nga affaire yi neex te amul benn problème pourquoi pas on devrait pas faire moins quoi et surtout sax benen bi stop c'est vraiment de saluer la mémoire de de Samba Sarr mu vraiment un grand gis nga message bu mu témoigné woon ci biir groupe bi bu mu après la comprendre exactement message bu mu ma jox mhm. et que vraiment di ko ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana mhm. te ba vraiment ñu def justice quoi mhm. parce que grand bu baaxoon la xajoon na vie, parce que en fait mu ngi nekkoon ci tànk yooyu parce que ba mu doon def le profil di def le profilage des des candidats de la de la commune et que am na lu mu doon annoncé mais malheureusement nag loolu vraiment jàllul mais même s'il ne reste que ça, pour vraiment euh, xam nga voilà saluer sa mémoire ñu ñëpp war nañu mën a ànd ak dal quoi ñëpp war nañu mën a ànd ak dal ah warul am wax bu ñaaw xam nga voilà ñëpp rafetal ñu dem si élection jàmm ak salaam ki nga xamante ne ni moom moo ko jël gars yëpp woo ko félicité ko ba pare nekk à la disposition de la commune pour ñu àndandoo liggéey man dama doon wax sax ne li doon gën moom mooy que ni bu ñu amee ay liste nañ jël ténoru liste yi li parce que euh, bu ñu amee 14 listes wala 15 listes wala 25 listes mais liste yi nañ jël benn ça va nous permettre d'avoir l'ensemble des ressources humaines de la commune yooyu dajee ci conseil municipal ba kon donc foofu mhm. travail en équipe par la force day am mais malheureusement que peut-être euh, demeewul non raw gàddu la c'est vrai hein, ku cou ku voilà ku raw ba même ben point boo ko rawee yow yaay yow yaay jiite ñeneen ñi sa et je pense que daal na ñëpp ànd dal na def de telle sorte que problème du fi am ken duñu dégg suñu ñaaw parce que Pikine Ouest loolu lañ ko mës xamé xamee mësuñu mhm. ko dégg suñu ñaaw mësuñu si dégg lo xamanteni ni lu salté la kon donc élection yi warul tax ñu ci dégg nous ku nekk na nous moromam ku nekk na jox moromam cër teewul ku campagne li nga la campagne def li nga a def ku yàlla tudd après ñu pas la fin du monde Il y a le département qui est là il les y a les législatives qui vont venir il y a les députés au niveau de pékin Ouest il les y a les présidentielles qui vont venir il y a les ministres etc. Nous mën am ay représenter la commune de pékin Ouest c'est pourquoi même dans les institutions au niveau international war y a am représentants mhm. ça veut dire que le combat c'est pas seulement au niveau micro mais aussi c'est au niveau c'est au niveau macro en tout cas daal eh, loolu daal laa doon laa doon wax ji wax ji rafet na da nga tudd léegi Samba Sarr mu nekk mhm. ki nga xamante ne dafa sori su ñun mhm. eh, ñu bokk dëkk mu mës a rafet wax dëgg yàlla eh, ma lay fàttali waa ñi nga xamante xamuñu ko première émission bi ñu def biir canal banlieue Samba Sarr moo ko def oh. moom laa njëkk invité mu ñëw def émission ñu def émission ba fii ñu génn ci biti mu ñaanal ma ne ma ne ma lii daal seedu yàlla nañ ko dégg fu kawe macha allah waaw loolu moom moo tax bi mu bi mu génnee àdduna suma technicien yi émission boobu lañ tegaat. dëgg la ñu invité waat ko ci beneen émission muy waxi dee ba cité Fatmata Matar Ndiaye. Mm-hmm. naan ñun dañ koy fekki te dañ ñaan yàlla ñu ñu denc ñu arméeru Pikine. wallaahi tax image yooyu ñu yor ko ba léegi dafay dafay dellu si suñu xel. Mm-hmm. ku Samba Sarr rek dañu ñaan yàlla ñu defal ko justice pour fu mu tëdd mu mën a mu mën a set. wallaahi parce que passage Seydou dooguma la yàlla bu yàlla doog maa ngi aussi tamit di nuyu sëram bu baax Rugi Rugi Sarr sama xarit la mm-hmm. et sama sœur la moom aussi tamit ñun la àndal. Mhm. waaw ñoo ànd ak moom di liggéey. parce que moom benn parti la nekk te quatre parti boobu moom nee na pare na pour euh, ñëw ñu joxante loxo pour liggéey. di ko nuyu di ko masawaat bu baax a baax. di di jaale encore sa sa wax dëgg yàlla famille Sarr de Cité Soutuba. Mm, ak grand Ibrahima Sarr aussi. Ibrahima ñun mm. ñëpp ñu leen di jaale di wax ne Samba saar ñoom kese moomuñu ko woon. Mm. Samba Sarr Samba Sarr Pikine la woon. Mm-hmm. Euh, Samba Sarr Samba Sarr national la woon parce que. Euh, ku ko mës soxla rek man vraiment am na exemple yi am mënu ma ko wax. mais waaw euh, bu ma ko soxla daal xam naa ni ma daan def ba ñu ba ñu ànd. yal na yàlla yërëm ko yaa na yàlla xam naa amiin amiin xanaa rek comme jeex na. li mhm. ngay tàggoo kàddu gu mujj gi rek balaa ñoo tëj émission bi. waaw kàdd gu mujj bu nekkul kàddu gu mujj rek di euh, di la remercier bu baax a baax Seydou vraiment ak technicien yëpp Alioune. moo frère maa ngi koy remercier di vraiment saluer le grand consultant international en droit de de l' environnement Ousmane. moom daanaan la tonton Balde aussi mu nekk vraiment ku jàmbaar et l' de des membres euh, de la coalition And taxaw Pikine Ouest di ñaanal suñu góor gi Père Mamadou Faye yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér. di nuyu bu baax a baax la famille sama famille yëpp ñu ngi leen a baax a baax di leen jaajëfal si compréhension bi ak si taxawaay bi les membres de l' entreprise aussi maa ngi vraiment ñaanal ñëpp di lancer un appel solennel euh, à la diaspora parce que en fait boo xoolee au niveau de la commune de Pikine Ouest am na ay immigrés yu fi nekk boo xoolee si monde bi yëpp am na ay doomu Pikine Ouest di leen tàllal loxo di leen ñaan ku mel ni Youssou Seck Youssou Seck muy liggéey liggéey bu am solo dikot ko eh, remercier si taxawaayam mais eh, aussi di ko talal loxo pour mu gën regrouper la diaspora de la commune de Pikine Ouest pour que ñoom aussi tamit ñu nan eh, apporter contribution au développement de de la commune la maison de la diaspora war na mën a am biir Pikine Ouest parce que diaspora bi ñu ñëpp gis nañ lu ñuy dugal en terme de transfert d'argent en terme de d'accompagnement des familles et gis nañ ko kon loolu tamit man je pense que tey ñoom bu ñu leen valoriser woon aussi tamit ku si nekk expertise bi nga am boo ko indi woon au de la commune commune bi dina dem fu sori foo xamante ne nii vraiment dina dina am solo maa ngi remercier waat ñëpp di jaajëfalaat ñëpp di jéggaluwaat ci kàddu yi bu fekkee ni jub na borom la bu fekkee dëng na xamal nit moom moom matul mais vraiment ñu ngi jaajëfal euh, ñëpp encore une fois merci beaucoup et canal banlieue vraiment suñu télé quoi yàlla na nekk télé bu mu nga mag a mag a mag bu yaatu bu voilà bu dem ba au niveau international ba vraiment li ngeen ci bëgg yëpp ngeen am ko quoi jaajëf mbokku téléspectateur dégg ngeen ñu amoon mbégte ak kontaan dalal ki nga xamante ne moom mooy Moustapha Gueye euh, wax dëgg yàlla muy euh, jeune bu am talent jeune bu am xam-xam Euh, jeune bi nga xam te ne ku am yaakaar ci moom la wax dëgg yàlla di ñaan yàlla yàlla du tas yaakaar waaye yàlla bu yàlla bu tas yaakaar yàlla bu yaakaar tas euh, idée yi nga xamante ne sotti na ko fii yàlla na ko yàlla dimbali def ko ci naal ba bu ko sottil tamit kenn ku mu àndal ñu mën ko ñoom ñaar sotti ndoo daal koy liggéey mu nekkoon seen émission en route vers les élections Euh, incha allah beneen émission dinañ dugaat ci banlieue bi indi beneen kàngaam fas yéene seex ak moom waxtaan lépp li nga xam te ne naan la ko ci population am naan la ko ci commune am incha allah ñu fàtt ko sotti lépp daal di koy jëriñoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.